bu baax euh, di julli ci yonent bi gërëm samay ñaar waajur du nuy Sénégal yëpp di ñaan yàlla jàmm yàgg Sénégal. Hmm. Euh, tey mi am rek mooy vraiment am contentement bu rëy di leen sant di yokk di leen ñaanal te tamit aussi vraiment gis nañ ni kaaraange réew mi nu mu dëgëree te adduna bi yëpp. d'accord nañ ni commando yi militaires yi ay jàmbaar lañu kon loolu mbégte la bu ñu tëddee nelaw ba doyal ñoom la suñu xandoo suñu tamit amee maanaam euh, indépendance tamit aussi ñoom la kon tey vraiment suñ may chaque année chaque seen fête suñ may décorer vraiment contentement ak yëg-yëg bu ma am dafay ëpp dafay ëpp man mi commando laa mos a bëgg a doon suma suma enfance suma xale yàlla def tamit aussi sama diggante ak ñoom gis men ñu sopp ma bëggal ma seen bopp man tamit aussi ma bëggal bëggal ma sama bopp ma bëggal leen sama bopp parce que boo xoolee tey man suma enfance yëpp maa ngi ko yi fa lañ daa nekk di di lekk ci gras yi xam nga di leen fréquenté daw ñu leen di topp man tamit aussi bu yàlla defee li nekk lu hasard ma bu baax ci Simon bi fi nekkoon bëkki fi nekk tey ñu koy félicité di ko ñaanal fi mu bëgg a yegg moo ko xam yàlla ko yàlla suñu borom yaa ko wax seen jàmbaarte wax nga ko. Mm. gis nañu tey li ñu def ci démonstration. Mm. kenn ci waykat yi di maam Góor Diazaga di leen sànni xeer ban kàddu ngay sànni ci loolu. waaw bon lu mu ci wax rek mooy que militaires yi moom ba leen fréquenté wul nekkoo seen biir noo mënoo comprendre li ñuy daj. ak ki nga xam ne dafay dem pour jaxe bakkanam pour ñun population bi ñu am jàmm non ñooñu amuñu seen fay xam naa sûrement dafa juum moom suma xarit la suma waay la dafa juum mais maa ngi maa ngi lancé message armée bi militaires yi bépp homme de tenue ko xam ne doomu aadama moom mooy juum mais xëy na tamit aussi waxewu ko intense boobu moom suma waay la suma xarit la kon tamit aussi xam naa euh, baaxam ak yarom mais xam naa tamit doomu aadama tout le mu mën na mais militaires yi commando yi non macha allah mention spéciale parce que boo leen fekkee ci àll bi man dama leen di fekk ci àll bi fu yéeme ci biir àll bi dama leen fay fekk damay gis ñuy daj ñu ñu ngi nelaw mais ñoom nelawuñu taluñu dara ndax ñun kon luñ buñ leen tàccul félicité wuñ leen amaana mu na bañ demee noonu mais tam aussi ñun ñu ngi leen di félicité di leen wax ni seen njàmbaar bii nekk seen logo ñu wax gaynde gi góor fit non maa ngi leen aw maanaam bu am commencement mais amul fu mu jeexee. Ah. Euh, waa di waajal nag sama retour di ko waajal ak fors di ko waajal ak doole bi pa moom commando laay ñëwee dara du ku ñëw baax na ah. waaw ñu ngi waajal ñëpp Bombardier moom maa ngi koy dégg ñu wax naan defit boo gën a métti xam naa mer na ma trop mais bu ñëwaatee moo xam lu mu ok jàmm pare nañ bi ak ok.